asalaamaaleykum waa maa ngi nuyu militants yi ak militantu coalition Benno Bokk Yaakaar di nuyu mag ak ndaw góor ak jigéen tey maa sàkk woon waxtu wi ci jamono ji ci place bi nga xamni ne lu ne xewe na fi ci Thiès ak Sénégal ci jamono ji nga xamni ñi ngi wajal élection présidentielle place bi lu ne xewe na fi lima bëgg wax nak duma nekk France diko wax duma ma nekk sama kër di wax duma nekk sama koñ di wax maanaam damay riigu toog ci place bi ci diggu cees waxe ko fi ndax wax ji du wax juy xàjjatle du wax juy yàq wax juy defar la wax juy dindi ak wax joo xamante ni nii dafay dàq Thiès ñëpp a xam ni dafa am position bu mu yàgg am ci politique position yooyu nag dafa am lu mu ko daan defaral am lu mu koy yàqal te lim ko yàqal moo ko ëpp ma jàpp ni boo xoolee yàq-yàq yëpp li ko indi ci wàllu politique ba cees taxawaay bi ñu ko xamee woon ci Sénégal ci walu wu ci ne bu nekkee au pouvoir taxaway biñ ko ci xamee ak doomu Thiès ak bu nekkee opposition taxaway biñ ko xamoon doomu Thiès yi nak bima bi dafa am ñett yu ko yaq te ñett yoy moy Thiès dafa am politicien bo xamante ni da fay tricher dafa am ay tricheur am ño xamni poli politicien bo xamni dafay tromper dafay naxe mu am beneen politicien boo xam ni maanaam day wore dafay trahir ñett yooyu bu nu dajee nekk ci ab coalition muy coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Thiès xam nga ni kon loolu boo ko boo ko xoolee rek moo justifié échec yi musa am Benno Bokk Yaakaar yëpp fii ci Thiès ba tax na may wax ni jot na ñu dàq tricheur yooyu jot na ñu dàq trompeur yooyu jot na ñu dàq traître yooyu nga xam ni ñoo yàgg a taxaw fii di woote ci turu Benno Bokk Yaakaar di suuxal li lay wan loolu mooy jamono bi nga xam ni président Macky Sall tànn na fii ci Sénégal ak Benno Bokk Yaakaar ñu tànn président Amadou Ba pour mu jiite coalition bi

kon situation boobu nga xam ne la amoon avant ak maintenant dafay jaadu kon ñu changer stratégie moo tax may wax ki nga xam ne président Paul, stratégie bu Benno Bokk Yaakaar muy le président qui Niass mu supprimer comité électoral la ville de Thiès ndaxte dama jàpp ni coalition bi ci Thiès am na ay tricheurs am ay trompeurs am ay traîtres ba à la place de ça ñu def fa un comité de volontariat pour un Thiès émergent installé ko ci proximité Thiès waay ñu taxaw pour mën a jàkkaarloog ñi nga xam pour défendre sunu candidature bi nga xam ne moom lañ def muy Amadou Ba donc suñu candidat Amadou Ba may wax ni man Ousmane Diop ma ngi wo képp ko xam Thiès daanaka li nga xam ne mooy deretu gor deretu ceesuwaa biy daw ci ñun tax na ñuy woo képp kuy ceesuwaa bu diiñ bu compétent bu am lay bañ bu jub bu nit ñi wóolu nga yàgg sonal askan wi jibu leen di liggéey ak ñoom kooku maa ngi lay woo nga jóg ñu ànd ci vote boobu pour mën a jige population bi jiital notable yi nga xamante ni nii ñoom ñoo fi àndoon di am di dimbali nit ñi ñu doon social démb ñu leen dimbali doomu aadama yi démb te nekk Thiès dëkk fu nekk ci Thiès yaakaar naa ne ñooñu leen war a tey rogganti ànd ak ñoom pour jox ndam fii waa Thiès ñu doon social démb ñu doon dimbali doomu aadama yi démb te nekk Thiès dëkk fu nekk ci Thiès yaakaar naa ne ñooñu leen war a tey rogganti ànd ak ñoom pour jox ndam fi waa Thiès

loolu lu mu tekki tey Thiès amatul dara lu mu représenté ci parti au pouvoir ndax seen melokaan ak seen doxalin dañuy tromper leader bi tricher ci liggéey bi ñu leen sant ci Thiès politiquement ba pare trahir population bi nga xam ne maanaam seen bopp la ñuy wutal bu nu amee fàtte ñeneen ñi nañ ci lim ay exemple yi bare fi ci ay leader ci Thiès yo xam il aller. mouvement présidentiel wala ñu nekk ci jamono ji ñu donc Lolo tax na ci ñuy woote ci Cees yi Nous ñu nous ñu tamit représenté tout dara ci opposition bi gis ngeen ni maire Nord muy Birame Diop nous na victoire politique ci passé n'a dinaa ko def nous ko gagné socialement défaite politique ci cees Nord loolu tax na maanaam war gi mu njëkk a war waa Thiès Thiès Nord ñi leen da leen di bàyyi pour dem assemblée nationale war googu tamit gis na ko jàpp naa ni tamit fa mu yaakaaroon ne mooy nekk seen candidat te nekkoon fa numéro 2 ñoomit it war nañ ko tey loolu tekk na ni Thiès buñ ko wóolootul au pouvoir wóolootul ko ci opposition bi kon day jaadu doomu cees yi jóg ñi man toog fii ci biir Thiès wax ak Thiès waay yi nga xam ne diñ lañ ñu ànd pour wuti dara pour am ko ngir yokk cees delloo ko gëddaam politiquement delloo ko gëddaam ci koom-koom ndaxte Thiès namm nan ñi fi nekkoon daan yor koom-koom bi fii da nga daan dégg ñu ni cees ñu la Thièsu Mbaye Sincère la ñu la Thièsu moom parent la ñu ni ceesu diw diw la parce que ñooñu ay opérateur économique la woon yoo xam dañ daan dundal Thiès kon nag ci loolu lay woo waa cees ñu ànd ak ñun créer li nga xamni moy condition politique yi am taxaway bi am ngor gi ñu woo ceesuwaay di am compétence ñu mëna dem lijeenti lolu loolu la leen wax ni loolu la bëggoon taxaw fi ci place su bi waxe ko fi du tok sama kër di ko fi wax du ma France di ko fi wax du ma génn Thiès di ko fi wax fi lay tok ci digg place su bi wax ko fi pour lancer message bi au Thiessois